Thierno Alassane Sall APR ñëpp a ngi ci biir jàpp nga ne bu ñu amee majorité ñoom itam dinañ mën a dem parce que opposition Sénégal li mu gën a tële itam mooy def aw say. waaw mais xam nga léegi ay xam nga xam nga wala jaay def nekk ku la njëkk a reer wala la reer yi xam nga <laughs> Pastef ak waa APR waa waa Yewwi ak waa Wallu dañ fay def ak caay-caay 2022 panache yi seen liste législative <laughs> nan ngay def cest à même ba opposition mën na am trois blocs blocs yi ñu fexe ba ah, département ñu ñu séddoo buñ xam nga trois blocs mën naa am ci opposition kenn ku ne ñu bàyyi la service national nga investir ñu ña nga bokkam waaye département yi ñu xool ko ñu ne dakaar nañ ko na na diw investir Guédiawaye Pikine et cetera et cetera su ko defee partout dans tous les départements opposition bi dañ fay am benn benn yenn candidat ok buñ ko defee Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko moom c'est-à-dire boobaa li Bassirou Diomaye Faye bëgg dana ko doon maanaam premier président bu dul bu dul liggéey nga euh, nekk roi d'Angleterre. foofu laa doon bëgg a ñëw parce que est-ce que tamit cohabitation gën na ndax. dañuy faral di gis ay defante aussi à l'Assemblée nationale. mais defante li jot a xew diggante ñi. xam nga defante xam nga pour le moment président de la République ñetti yëf la sant Assemblée nationale. bu njëkk ba mooy la révision de la constitution boobu boobu antuwut mu sant leen ñu woteel ko loi bi jëm ci commission nationale de de. des droits de l'homme commission nationale ñu wote ko à l'unanimité c'est-à-dire waa APR Benno ñëpp ak waa Pastef ñëpp ñoo ko wotendoo ñu ñëw ci la loi sur la ratification de la convention ñu wote ko à l'unanimité gis nga Fatou dama la wax ne Bassirou Diomaye Faye li mu am nii quatre-vingts députés yi mu am bu boolee woon wallu bu boolee woon Pastef ak wallu muy quatre-vingts bu leen ah, pardon Yewwi ak ak ak ak PDS réintégré ñoom xalifa delluwaat ci ñoom suñ ko defoon maanaam ñoom am nañ déjà quatre-vingt-dix gis nga Macron mi dissoudre assemblée nationale bëkk dem bu ko amoon du xalaat di dissoudre assemblée nationale amul benn président bi boo xam ne mën ngaa am quatre-vingts députés di rabax rabax yi parce que moom déjà am mën naa majorité absolue waaye nag loolu nit a koy def ginnaaw ñoom dañu duñ duñ nit te nag non seulement man xam nga li may tax toujours ci Pastef ñoom dañoo jàpp maanaam dañoo jàpp ne nit lañ te duñ nit et là ils sont que nag bon c'est vrai nag boo leen ko waxee naan waaw ñun noonu la réew mi kii bon c'est vrai saay saay nañ ba falu waaye caay-caay du yorum réew de caay du yorum réew tamay wax Sénégal Bassirou Diomaye moom discours bëgg démb bi ce sera ce sera une un discours que dama gis waa marqué l'histoire du Sénégal comme étant le plus le premier le plus grand discours mensonger d'un président le plus en exercice dans le monde yegg na ci mën koo xañ majorité à l'Assemblée nationale. war na koo xañ war na ko war na koo xañ laa Sénégal yi nag bëgg ku leen di wax lu dëgg Sénégal yi moom kuy fenn du leen dérange Sénégal ki ñuy bañ mooy kuy wax dëgg Sénégal boo koy wax dëgg day maanaam nopp yi day riir parce que on dañu on a le pays sur du con du faux du consensus du faux même boo xoolee bi bi ñuy faloo ñaa non délai de grâce élégance républicaine nañ leen may bañ toog gis nga koo xam ne mënoo xam. ne Bassirou Diomaye Faye ak Sonko fu bon fii lañ jëmee réew mi fi fi FMI wax ku mënta xam waroo def politique. ak ah, ñoom sax ne nañ de grâce. ah waaw ki ne bëgguma délai de grâce nga naan koy may délai de grâce bon c'est que ñu ci bari dañ doon xaar ba xam ndax daañu leen compalam déet <laughs> ah dañ doon xaar ba xam ndax. lañ doon dégg ah bien sûr am na ñoo xam dañ doon yé dañ doon dañ doon yeeru yeeru dañ doon yeeru ndax gars yi daañu leen woom déet woo woowu ñu leen am na ñoo xam ne dañoo ragal dañoo ah ragal waaw dañoo ragal jàpp ne xëy na dañ leen di jàpp parce que dégg naa ci fi for naa ci weeru nag nag mais ñoom Idrissa Seck ak ñoom Khalifa bu ma kenn wax division de force nouvelle for naa ci weeru nag de lu ëpp téeméeri nit war nee nañ leen bu ñu génn réew mi ndax dañ leen bëgg jàpp foofu lañ doon jàpp mooy li mu wax dëgg démb ci discours am pour te dire que Bassirou Diomaye Faye respecte Sénégalais yi faatu xam nga discours am bi moom c'est un discours historique xam nga mbirum détournement mm. dama koy lire nag français daf ne les résultats de l'audit soumis à ce jour à la Cour des comptes pour validation font ressortir une gestion publique empreinte de légèreté qui ont occasionné des dérapages volontaires cachés, volontairement cachés dans la gestion des finances publiques avec une évolution incontrôlée de la masse salariale, de la dette, des intérêts de la dette et une non-maîtrise des subventions, un dérapage des tirages, des tirages sur les ressources extérieures. may wax sénégalais yi. cour des comptes rapport bi mu yim sañ a valider mooy yim defal boppam. cour de comptes du hmm. jël du valider benn rapport bu jógee feneen. rapport yi mu validé mooy yi mu defal bopp parce que magistrat ya fa nekk ñu mettre leen dans d' excellentes conditions pour ñoom ñuy def seen rapport bopp lañ leen a sonn waaye amul benn rapport bu ñu bu leen bés bu ñu war a jox ñu di ko xool. suñ ko defee war nañ boobaa askan askanu Sénégal. xaaral maa gën a def mu ne ci maanaam iskazal li tax ñu war a jàpp gaa yi nee na wuy waaye nee na y de la légèreté de légèreté la gestion légèreté du délit kooku faute de gestion la bi ci des nee am na dérapage sur la gestion des finances publiques maanaam mooy bor yu yàq yokk yi. Hmm. affaire yu mel noonu service de la dette beeg yooyu. c'est pas des délits sax c'est pas loolu du yoon kenn du jàpp kenn avec une évolution incontrôlée de la masse ñoom déjà dans le dans le document de document de euh, de programmation budgétaire pluriannuelle prévoir nañ ci yokk le le budget du fonctionnement de six cent cinquante milliards ci ñetti at. mais parce que nee nañ Macky Sall fi bàyyi ay recrutement yu fonctionnement bi xam cent cinquante milliards. waaw sëñ bi ku mën a yokk ci fonctionnement fonctionnement mooy yooyu. oto yi ngeen di jëndal bureau yeeg salaire loolu mooy fonctionnement. Mhm. ku ci mën a yokk six cent alors ñu maanaam masse salariale bu yokk loolu du du su tëj nit <laughs> bi ñu des mooy nee nañ daa yokk ak ak intérêt de diggante 2 avril ak léegi Bassirou Diomaye Faye li mu fi leb maanaam ci diir bu gàtte noonu ils sont battus tous les records du Sénégal. de tous les quatre du Sénégal. FMI joxoon na ko d'ailleurs. waaw te li mooy FMI nee na. xaalis bi ñu leb soxlawuñ wuñ ko. te dafa li gën a garaaw mooy bu dee eurobond yi eurobond yi dafa am commission yow mi koy leb ki la koy ki la koy doxal ba nga mën ko leb donc am na loo koy jox mais yow mi nga ko lebal aussi am na lu ñu lay jox Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye Cheikh Diba nañu wax Sénégal lan lañ am ci commission wala rétro commission ci 450 milliards yi ñu leboon ci eurobond. dañ ciy am dara ah bien sûr. seen poche la jëm. ah xaw ma fu mu jëm de peut seen keesu parti tabax ci permanence mën naa nekk. nañu wax sénégalais yi parce que loolu ba robot ki la koy def intermédiation bi da nga koy fay am na lu ñuy wax assur moom itam lu muy def rétro commission yu ñu la ñuy joxe. ñëw ma jox na yow mi ko pour mu négocier la. mooy bien sûr mooy mooy Tony Blair mi fi sa Ousmane Sonko doon saaga moo doon dox loolu. maanaam dañu lay négocier ba ñu leb bor bi da nag négociation daa am loo koy fay ci bor bi te daa montant boo xam ne moom nga koy fay. am na ci dana di am ñaare ñoom kooku la lebal ba nga kooku lijjantil ba nga leb xaalis bi nga am loo ko fay la ko fay am na lu mu joxe yow mi ko yow mi ko doon lebloo am na réew yu koy def xaw ma nag ñoom def nañ ko am déet. <laughs> ci yi ñu leen ci doon ñu yi dañoo dañoo gis nga jub jubal jubanti daa daa xëy ñoom ñu gont. jub ak jubanti. daa xëy ñoom ñu gont. pourtant ñu la ñu nekk ba tey. muus loo waral dama ne daa jub daa xëy ñu gont waajuñu ko sax def buñ ko waajoon def Cheikh Tidiane Dièye dàq nañ ko bu yàgg ci gouvernement bi. mais ministre de la justice nee na bind enquête. Oh, oh. duñu xar mu oh, leer xamul dara ci li muy wax. c'est yi un ministre c'est pas comme ça qu'on ouvre une enquête sur lui un mën na ko woo na ko kay wax et puis un ministre même boo ko dee woo bala nga ko woo président moo ko autorisé même pour mu dem tribunal. non yooyu ay ay ay nax nit ñi la rek pour pour dalal xelu nit ñi pour ñëw foog ba léegi ne ñu ngi ci jub jub jubal jubal et puis président laaj bu toog jàkkaarloog saw askan di leen wax lu dul dëgg non noo mën a waxee ne yaa ngi ci njub yaa ngi jubal yaa ngi jubanti c'est-à-dire nit ku ku dul wax dëgg du jubul nit ku dul wax dëgg du jubal nit ku dul wax dëgg du jubanti te Bassirou Diomaye Faye discours am bëgg bu wax lu dul dëgg la ca doon dëgg te war naa ne wax dëgg parce que nee na assemblée dafa usurper ses fonctions présidentielles de de fixation de la date de la DPG. mais c'est archi faux DPG président la bi amu ci benn sañ-sañ lu dul seetaan ko c'est-à-dire dana lire discours bi évidemment balaa président la balaa premier ministre dem parce que c'est le président la bi qui définit la politique de la nation. Mm-hmm. et c'est cette politique de la nation que le président la décline dans la dans la DPG. mais pour ce qui concerne la fixation de la date premier ministre rek la xam nga nag bu fekkoon sax sax nekk sax waru koo def.